وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور gannaaw ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli si yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fas yéene tàmbali liggéey bi jëm ci muhaadara bu am solo bu méngoog jamono bu jamono laaj di alshababu wa taqniyat alxaditha ma laha wa ma alayha wala boog al ijabiyat wa salbiyat ndaw yi ak yu feeñ ci jamono bees ci jamono ci wàllu ay xaaral comme lu bees la rek mënees na dégg am na ay njëriñ waaye tamit am na ay loraange ci loolu nga mbokk mi Abdullahi Loum fas yéene waxtaane ak yéen maa ngi ko wax ak oustaz mu hésité. waay ah jërëjëf moo ne oustaz mu ne du mu oustaz waaye loolu yëpp day wane ni euh, naa boole ñaar jamono ak diine nga jàng jamono ba pare xam diine xam si lu bare ba ñu mën a sax ak oustaz yi loolu tamit si benn bopp ku ñu xam la ci ndaw shabab xarit euh, Fallah. am ay activités yu am solo jëmale ko si xale yi suuf si wàllu jàng ak jàngale ñi koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla may ko kàttan ak wér bu mën ko taxawee bu baax a baax kon comme xam ngeen ni ngi gisee dañu xaw a tardé tuuti en retard duñu bàyyi lu dul jox al ax Abdullah Lom mu indi li nga xamante ni moom la préparé fa leen faddal mashkura salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. bismillah alhamdulillah. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu sant di gërëm Ahmad Cissé. li ma si xaw a jaaxal def ne ñu gaaral liñ préparé xam naa gars yi gis ne ñooy loxob neen li ñuy bëgg insha allah mooy indi beneen uslub si dawra bi mooy tey place bi dañ koy bëgg transformer def ko classe ndax tem bi moom moo ko laaj dootul doon ñuy toog di déglu ak kay wax mais nag ab classe la kun naan xëy na moom mooy mel na lay formé wala jàngale ak ñani formé ñu bokk génne solo bi nga xam ne thème bi am nag kon defe naa li may gën a soxla mooy micro sans fil Jibril incha allah ñu mën a tàmbale liggéey bi ñay enregistré nag ñoo mos xaw a jaaxal incha na dina leer euh, xam ngeen ne jubluwaay bi nga xamante ne moom la tawra bi indi mooy comme thème central bi li mu wane mën nañ bu leer ñeel doomu jullit ci wàllu daawa lu woote ak comme nag lu leer lañ bëgg fukki fan yi ñuy nekk ak yéen dañuy bëgg loolu di topp ñi fi jaar ñëpp ku nekk wàllu mu ñu doon matériel léegi nag suñu ñëwee si loo xamante ne jiitu na bët di dem ñu wax leen mooy lan lan mooy informatique lan mooy internet moo xam si sa formation si lenn si wàllu wóor wàllu excel tey jii dañuy xool ana lan la làmbool si ay njëriñ ak i damay bëgg mu nekk loo xamante ni bu leen yaakaar ni mukk dama daan awalan bii mooy njëriñ bi saaniyan déedéet ñu bokk génnee ko insha allah ndax mu gën a leer mu gën ko dab kon si noonu dafay nekk comme ni ma ko waxee ab classe moo xam ne dañuy jàngale wala former laata ñuy dugg si thème bi ma bëggoon Euh, bàyyiloo fi xel lenn rek ci benn laaj mooy dañuy dégg ñuy wax jàngale mi enseignement wala formation tadris wala taqwim ma bëggoon leen laaj lan mooy farq bi si ne différence bi ne si diggante jàngale enseignement ak formation ban différence moo nekk si loolu naam yëkkati baat yi tuuti rek dina wax incha allah naam bismillah jàngale jàngale hmm. boo xam ne nii dañuy genre dañuy dañuy ak dañuy jël. di ko def ci xaalis wala di ko def ci li nga xam ne moom la ñuy ñaan. di ko sol mais formation nag dafa am lu mel ni ñaan loo pare. waaw dañu bëgg koo former defar ko ba mu mun a eh, jëm jëfandikoo li mu yor. macha allah li wax la rek ñett rek ngay jël ah bismillah. Eh, ak farko bay naan takk wi. waaw jàngale ak formation. am na différence. ndax li nga xam ne moom lañ lay formé mhm. ci fukki fan mhm. am na ci yoo xam ne benn fan lañ la koy formé te war nga jàng ci ay sa mooy parcours macha ah, allah noonu la kon mbir bi leer na mooy jàngale nit ki dafay jël temps mu doon xam-xam boo xamante ne dañ koy jox nit ki nànk nànk nànk nànk formation nag te si loolu lañ nekk mooy li ñuy indi xam ngeen ko xam nañ ko ba pare li si ëpp bokk léegi euh, jamono ji niy nekk daf ñuy dimbali rek ñu gën ko mën a dab ñu gën ko mën a dab kon loolu mooy lim si mën a tënk mooy li ñu ñu wax xëy na nag boo demee si ñi nga xam ne dañuy def falsafa dinañ dugg nag xóotal wax lu ne mais si gàttal mooy lii mooy pàcc bi ci nekk léegi kon ñu ñëw suñu thème waxoon naa bu nga ko affiché bu mu de bi kan moo ñu koy fàttali déet bu liir sañ bi kan moo ñu koy fàttali am naan waa ji xam na yëkkati loxo duma leen intérêt moo tax muy gaaw def ni li ma si jublu mooy bu fekkee ne da ngay jox yitte ak formation dafa mel na ngay jàngi balaa ngay dem duggi sa classe ba war nga xam tey lan lay mooy thème bi jumtuwaay indi mais macha xam yi dañuy ñëw loxe neen donc yëpp a si bopp yi dunu bii du ko jar mu ngi noonu kon ñu leen si bàyyiloo xel nañuy yittewoo lan lay def buñ ko mënee préparé comme ni ko oustaz préparé ñu préparé ko ndax ñu loxo neen pré euh, bu ma bëgg wax mooy xëy ñu rek ñëw. donte yow ci dara mais su préparé kuy jàngale foofu mu préparé li nga ñëw toog pour mën a participer mën a def loolu ma fàttali na it ne yu mel nii ñaari façon euh, nit ñoo koy fekk ci moom changé pour am na ci koo xamante ne nag macha allah day géeju xam li nii laaj lépp mais dana ñott rek du bokk du participer boobu ñu ngi ñaan bu bañ a am dama bëgg nag nit ñi participer mais am na ci nag participation xamante ne moom dañuy nangu kàddu gi. lu jóg rek ñoom rek ñooy bëgg wax loolu te nekkul li gën ñooy tamit dañ leen wax ñu wàññi tuuti ngir ñëpp mën a diggu doomu kon sunu mawdu bi lan la alxasan alshabab wa taqniyat xadisa naam aywa say nee na salbiyaat wal ijaabiyaat alshabab yi fi jiitu yëpp mën nga mën nga affiché thème léegi ñi fi jiitu ñëw nañu ñun lu bari ci baabu shabab marxala bi am solo boobu ci dundu nit ki muy man ak yéen ku ñu ci tënkal lenn rek ci li ngeen fi jaar ñu mën a jàpp si lan mooy shab bismillah dafa baat bi dafa jógee ci baatu min shabba léegi bu ñu xoolee euh, shabab bu ñu ko waxee mi ngi tàmbalee à l'âge de peut am na ñu ne douze ans lay tàmbali. Mm-hmm. am ñu ne quinze ans lay tàmbali mais âge bi nga xamante ne moom la yem direct moom mooy à l'âge de quarante ans ñooy nit ki bu fa yeggee diggu doomu nag ay abda foofu mooy feewu loolu laa ci jot a jàpp ci gars yi lu ñu wax. est-ce que ànd moom si li mu wax wala bëgg nañ dolli naa xam na ku si àndul si ginnaaw yëkkati baat bi. waaw waaye li mu wax bi dix macha allah macha allah. Chab 12 ans lay jëmale man xawma ko fenn. mais yow loo jàppale par exemple. Chab euh, yaakaar naa si nu muraahaqa mooy commencé côté 12 ans ah. si nu muraahaqa. muraahaqa ah, dafa am naam naam waa si waa si dama déglu li nga wax. waaw naam Chab moom sans dépense nit ñi. naam ñoo xamante ne 15 man li ma jàppee wesaabu mooy exemple bu jàppoon ne nit jiw la. Mm-hmm. buñ ko jiwee. Mm-hmm. dem ba muy màgg di màgg di màgg jamono yi nga xam ne moom la commencé dem ba màgg ba commencé di tóortóor. Mm-hmm. ba meññ di commencé màgg loolu la moom mooy sabab si man. naam ñu jël bu mujj micro. man li ma jàppee chape. maa ngi ko tibbee ci yàlla subhanahu wa taala mu wax ci ne allahu alladi xalaqakum min daafin summa ja'ala ba'da quwwatin daafan baatu xuuba boobu noonu diggante bi muy nekk ci xuuba mën na am lépp parce que caab ci la lépp li jógee xam-xam caab moom buñ ko mooy nekk ministre mooy nekk lépp moo tax important ñu ko moo tax jamono fu mu toll dañ naan caab caab caab ngir yittewoo ngir ngir mu am euh, ngir mu am xam-xam bu bu baax parce que ci lépp ci lay jógee moo tax moo tax mooy fi muy toll nekk xuuba xuuba boobu noonu diggante boobu noonu loolu mooy shaab moo la yittewoo nga xam ne yéen di yëpp yàlla mi leen yónni ci boobu ñu nekk ay ay shabaab donc loolu la si jàpp jam jamil jamil euh, li ñeent intervenant wax yëpp mun nañ ko nangu mun nañ ko bañ a dàq bu ñu xoolee at naan lii muskila bi ba tax kële d'accord dafa joxe douze ans quarante ans maa ngi dama ne dafa am ay borom xam-xam yu ne douze ans lay tàmbalee amuñu ne quinze ans lay tàmbalee jëm quarante kon jëm quarante ñu ne bu yeggee quarante ans maanaam fa lay yem foofu mooy fa fa lay yem waaye fa la la wala fa euh, si tàmbale bi li nga xamante ne Cheikh Bada wax na ko ak li mu wax sorantewul. ci mujjee wax tamit joxe ko si diggante ñaari déew doole yi benn la kii dafa indi misaal si wàllu bay mun na ñaan mun nañoo nangu lépp li tax woon ko bi dàpp si âge dafay am lu muy lambool moom mooy euh, euh, togg jëf gi moo tax ñuy wax diggante douze ans ba quinze ans ba xam nañ ne foofu si lay duggee munuñ wax nag ne si quarante ans la yem falamma balaga ashudda wa balaga arbaina sana kon ci digg dooleem kon foofu quarante ans mën nañ ne ba tey chab la te nag lépp lu ñu yéeg ba si digg dooleem bu àggee foofu day commencé wàcc donc nekkul nag commencé na wàcc quarante ans pile rek jeex na rek ba mu gunge ko boo tax boo xoolee si xarakat falaa paa yi ay ay shabab nañ man mii si chab yi nañ ñu boole ndax nekkul quarante ans ñoom dañoo dem ba quarante cinq ne ba 45 ci biir xaratu Fana moom loolu lañ jàpp incha allah mais am solo mooy ñu xam ne mooy dund bi nga dañuy xam ne day boole kattan dëgg-dëgg kattan ak léeg-léeg féex léeg-léeg féex xam ngeen ne dundu nit dafa am ñett yoo xamante ne moo ko gën a margargal mooy jot am jot ñaareel bi mooy kattan. ñetteel bi mooy am am moyen tey ku sañoon di nga am kattan am jot am ay moyen foofu dara du ko dëgg mais loolu nag bu dajee yàq kese lay doon moo tax boo xoolee si tàmbale bi nit ñi mun na am jot am kattan mais du am ay moyen bu demee ba si jeexil bi mën na am ay moyen am jot day retraite wala dara mais du am kattan bi loolu du am kattan bi kon chaque li fay bi si ne yaakaar ne nit ki am na moyen tuuti si ay moyen am jot am dëgg-dëgg kàttan kon foofu bu ko tënkul exploité ko dafay nekk leneen loo xam ne dafay lor dañuy mel ne xadiis yan saa salaam bi muy wax nixmataan jàppaleen si waxuutu kasiiram dina naa yàlla asixa wal faraag a fii lan lañ koy melale dëgg-dëgg kàttan ndax su nee wér na mooy am na kàttan gis nga faraag boobu lan lay mele faraag bi mooy am jot comme nit ki nga bu amee jot ah lu koy gëb day day yomb day gaaw day yomb day gaaw kon sixa bi moo tax ñu ne lan la taajul asixatu aywa taajun ala ala rasi tayib macha allah laa yaraahu tayib macha allah kon day mel ne sama mbaxane bii est-ce que man dinaa ko gis yéen ñu koy gis dina koy mën a gis donc wér kattan dafa mel ne ab mbaxane ci kaw nit ki kan moo koy gis mooy ko wér moom mooy donc ka koy gis mooy ko feebar ngeen baal ñi feebar dëgg ñooy gis ne ci wér la kon ku néew doole góor gi nga xamante ne dem na ba bëñ yi ko bu jëlee guro bi jox ko benn doo bi nag rek rek mu ne aha moom mooy mën a gis doole ji dëgg-dëgg alfaraan lan lañ si wax kas alfaraan ka kas sey ka sëy donc bu fekkee ne dafa mel ne jaas wala nga ne sax paaka ñaari bopp lan lay de boo si boo si daggul da loolu mooy jot loolu mooy jot ak internet ak technique xadita si loolu lañ ko dugg ak kon day mel ne ñaar paaka ñaari bopp gis nga nga am jot donc xarala yu bees yi pour la ñaar nga jëriñu si war nga log si nga jëli gis wala nga ba fay leer kon ak technique mooy lan ah mooy technique kon baax dina kaa ab ah mooy technique wala mooy leneen kon baat bi da nga ko àbb wala kuy wax leneen ah naam développement ah mahaaraat technologie ah loolu laa doon seet kii na technique kii na technologie ñaari baat yëpp dañ ko am technologie ëpp lu ñuy utiliser mais xoolal dañ ne technique yaat technique yaat kon technique la nekk la ah, ah la nekk la jamono kon dafa mel ne les mais boo xoolee li ëpp ci ni koy tekkee dañuy wax lan technologie technologie technologie anglais français te boo ci boo si tekkee logique si anglais wala si français mooy xam-xam bi jàngale loola ah mooy science bi bi jàngale la ñuy tëdd masdar muy la ñuy wax masdar bi mais fii bu dee technologie danoo dem ba utiliser ko ba namootum si science bi mais ñu ngi si namm nag jumtuwaay si bopp moom mooy technique yi loolu leer na li ñuy jox yenn si technique yi bu ñu waxee bu ñuy jox yenn jumtuwaay comme portable très bien ak lan ordinateur ah oto jëy ak lan internet naa ah rajo télé ak yooyu waaw waaw léegi man am naa benn problème kii portable wax kii na ordinateur kii na rajo kii na télé ordinateur bii mun ma see téléphoné ah kon portable mënu ko seen seetaan télé nekkatul télévision dafa am multi usage aha bu si dafa am nu mu tudd d'accord ba tey portable ordinateur portable waaw ba tey téléphone pour lan mooy na am diggante ak phone yi dégg kay émettre mooy kay kay yóbbu fa jëm ak la koy yóbbu la koy yóbbu nag mun na nekk internet mun na nekk ay octet mun na nekk ay porteur ak yooyu mais li ma si bëgg na mu mooy téléphone gi mu wax pour keneen di wax muy dégg la ndax ordinateur bi keneen mënul nekk fële sa Arabie Saoudite di wax ma koy dégg ah tey macha allah télévision ndax ordinateur bi léegi-léegi mënuñu si jàpp 2STV bi ah? rajo est-ce que mënuñu si jàpp léegi TFM lan la bëgg nga am foofu wax kooku mooy ñu jàpp ko suñu waxee technique si baatu arab rek français yi ñu ngi koy wax tig yéen ñëpp dañu ngeen tig tig li muy tekki technologie de la information de la communication anglais di ko wax information communication de technologie léegi loolu dafay lambul bëri mooy xarale yi dem nañ ba nga xamante ne mënutul leen tàqale comme ci at ak ñaar at si ginnaaw téléphone portable lii rek lay def ordinateur lii rek lay def télévision lii rek lay def dafa dem ba kenn mënutul jàngat benn bàyyi beneen kenn mënul jàngat benn bàyyi beneen li ngay def ordinateur yëpp léegi mën nga ko def sa téléphone portable ak smartphone yi lépp smartphone léegi yi mi ngi mel ni téléphone ordinateur comme il y ci seen capacité kon lu lu ñuy boole la yëpp ci jaaru jàngat bi mais nun ñu wax satellite bi pare ne téléphone bi pare ne internet bi est-ce que kon boole jàngat bi génnee li ci nekk ci ay njëriñ ci loolu yéen may topp de ah jëy lan moo si topp ban baax moo topp si sunu Maodo bi xadiisa maanaam xadiisa jadida ah tayib kon bu ñu waxee xadiisa jadida mooy dañuy wax lan qadima am na lu ko jiitu waaye léegi fii yow ban déggin nga am si bees bi na am yow mi yow micro bi internet waaw lu bees la lu bees la su ñu waxee bees mooy màggat hmm. léegi nag internet bu beesee lan moo màggat télévision yi ñoo fi njëkk kon mën nañu wax ne ñoom dañoo màggat. internet ñu mooy. kon moom benn sonore màggatam ñu ko déggee si cadre internet ak télévision naam soxna Ndiaye jigéen ñëpp soxna Ndiaye laa leen wooyee nag bismillah. amoon na bu yàgg. ah xel leen Nokia yi ma yoroon année quatre-vingt-quinze ñu dem du yooyu boobu ñaata nga am ah bokkul ak téléphone yu bees yi nga xam ne moo xew moom boobu déggin la am si ak yàgg am na ko am beneen naam Cheikh. nagatu comme ni fan yi dañuy bees. Euh, fan yi mujj li ni gën a nekk ci fan yi bees bees yi rek maanaam mooy tamit day gën a day gën a bees. maanaam allah jazakallah xeer chef yaay gardien temps. nga dimbali ñu buñ balaa ñuy àgg si kii bi nga def ñu si ñu mën a dugg bi ijaab yaat tabiyaat ñun dañuy jël ba doyal yaa si topp après ñu desal la tuuti incha allah léegi jëy gis ngeen li ma doon ut mi ngi noonu kii déggin ba mu am si bees ak màgget bokkul ak bi si am bokkul bokk bi nga xamante ne moom mu am naam yow da nga am donc loolu loolu moom mooy problème bi dëgg dëgg dëgg loolu mooy problème bi dëgg dëgg bàyyi ñu ñu avancé daneen ñëw mooy ñëpp danoo am tendance di wax xarale yi yu yees yi ñu koy wax ci français NTIC NTIC moom lañu daan di ko wax ak technologie ya alxadisa wala jadida mais bu si defee jàngat bu xóot dañuy gis ne baatu xadisa boobu dafay déranger bu bari dafay indi problème yu bari ndax dégg ni ñoo bokkul ndax ñii dañuy déggéene ne système d'information bi njëkk boo xamante ne bii téléphone la bii ordinateur bi nangam loolu moo màgget par rapport ak bu bees léegi ñu boole ko intique ñu mën ko boole ñu boole ko ci benn par exemple portable buy def lépp yéen may topp de ñii dañuy déggee comme ni ko mbokk waxee mbir yi dafay dafa gaaw technologie ni muy amélioré portable 10 tey buñ la ko doon may sax bëggatoo kon chaque fois dafay bees di gaaw kon bees bi mooy dernier cri bi par rapport ak li ñëwoon ci même produit bi ci même produit bi kon dégg ni day wute foofu nag moo tax ñi nga xamante ne ñoo yor wàll wii wàll technologie ñu gis ne lu gën a yokk mooy dañu dindi baatu xadisa buñ waxati léegi antique wala ñuy wax technologie xadisa dañu wax rek rek ak technique ndax loolu dafay déranger léegi nga xam ne bu boobaa nag yow yaay xool fi nga toog lan ngay gis day mel ne leneen lu nekkul technologie nit chaque jour nag mu ngi beesal ay mbir beesal boobu day continuer kon ñu xam ne gis ni ko tey soo rombatee fenn gis waa ji indiwul baab xadiisa yi wala ñuy wax naan xarale yi dawul xarale yu bees yi wala gis tig dañu si leen en tig nga xam ne loolu moo waral ñu ñu xagar baab baat boobu leer na de jëy yi macha allah lan moo si topp naam naam wala jawaal wala internet loolu lan lañ si wax ne suñu jotaay duñ ci nekk di ko teqale naan satellite bi lii mooy mbiram internet bi lii mooy mbiram jawaan yi mooy mbiram déedéet dañuy boole yëpp nag def si jàngat jàngat bi kon si ne yi waa si moom mooy lan mooy ay njëriñam ak lan mooy ay ay lorom lan mooy ay lorom loolu moo si am solo loolu loolu loolu it noonu lañ koy defee dañuy génnee leen di bàyyi ngeen génnee li ngeen xam si njëriñ ak lor ñu commenté si bu amee nag li génnul di jël bu génn yéen nag si seen i laajte ak seen dem ah si la li fi nekk di génnee su génnee nag si yéen la bu génnul it si yéen kon yéen si war a gën a form kon buñ xoolee groupe boobu technique jaar léegi ñun wax ak alxadiisa dootuñu wax par benn yan njëriñ nañ si am yan njëriñ nañ si am Eh, aywa. Euh, bu fekkee lu mel ni bu fekkee lu mel ne jawaal bokk na ci ay njëriñam gaaw a mën a wisaare information jàllale information rapidement. gaaw mën a jàllale information mu ne bu fekkee ne lu mel ne jawaal ordinateur mënu ko ah internet mënul gaaw a joxe yi mënu ko. boo xoolee jawwal kese mënul tas information lu mu gaawee tamul ay fanaan yàpp tamul ay tamul jaww kon bul wax ne lu mel ne jawwal kon gis nañ ne technologie yi am na benn njëriñ bu am solo bu si nekk tasaare information mais loolu bu waxee njëriñ yaa koy dëppaleeg seetlu ah yan lor ñoo si nekk lan la yan soxla salaatu wasalaam wax doy fen wala bàkkaar koo xamante ne lu mu lu mu dégg ba saara kon tas ay information bu dee am na njëriñ ci information bu war a am njëriñ ndax buñ fàtte ne ay jullit lañ jullit bi warul def fàq ci luy wax euh, temporel ak spirituel mooy si waxtu wi ak ci jaamu yàlla du caaga ne waxtu julli jot na ma bàyyi li may liggéey dem jaamu yàlla foofu ma nekk jullit ñëwaat nekk technicien déedéet ci bépp waxtu nit ki da ko war a boole kon dund ko ak woo si nit ñi dimbali leen ñu dund islam boobu loolu dafa war kenn si ñun ku nekk nag sa tolluwaay fu mu ne kon mën na doon njëriñ ci technique yi pour wesaare loolu mais dafa am nag condition mooy la ngay wesaare na ko xam na ko jàng na ko dat mais du jàngale ne alxasan envoyé dama benn xadis rek buum ma delloo ko te jéemuma xam ne si nekk ak wér naag wéru mu jëri bu boobaa ñuy wax naan doy na bàkkaar doy na doy na fenkat yàlla insha que am na ñu ñuy bindal njëriñ yi ak ak lor ndax après dañ koy jéem a boole tënk ko ah dañuy bind yomb na da ngay def benn trait rek def fii plus def fii moins lépp luy njëriñ nga def ko ci plus bi suñ waxee lor bu mu dëppool nga def ko ci phase moins bi bismillah euh, ak tukuraatul ittisaal minha waaw wax qaribul boot waaye innakum laa ah kan moo am xalaat bu mel noonu lépp day waxatal waxatal naam السهولة الاتصال السهولة الاتصالات نعم وتقرب البعد يعني المكان البعيد منك يمكن لك الآن أن a هنا وتشارك مع دورة في المملكة السعودية kon loolu it bokk na si si njëriñu technologie yi léegi dañuy wax na juróom-ñaari milliards dëkkandoo sept milliards de voisins loolu lu ko waral moom mooy technologie adduna bi juróom-ñaari milliards ñoo fi ne ñëpp ay dëkkandoo dañ lay la nga xamante ne mi ngi xew léegi nii jamono ji mooy boo demoon Arabie Saoudite ñu ngi julli juma waxtu bii ñuy wax mën nga seetaan xutba bi seetaan seen julli juma si saa si te nag am na ku nekk biir Arabie Saoudite nekk këram te mënu kaa dégg xëy na boobu amul jumtuwaay yi moo la gën a jege si si maanaa mais yow nag si dégg gis nga mën ko gën a jege ndax yaa ngi dund bi ak loolu li ñuy wax événement 11 septembre fële si États-Unis ñun ñoo ko yëpp lu bëri si américains yi donc njëriñ boobu foog ñu nangu ko foog ñu nangu ko te ne technologie yu xarale moom moo ko waral ñaari njëriñ ngi noonu ñu wax bismillah comme comme ni ñu wax ci itisaalaat yi boo xoolee jamono yi vers avant quatre-vingt lépp boo bëggoon waxtaan ak keneen boo koy bindi leetar su boobaa boo tam boo boo jàngoon nag fekk dangay xam secret nit ñi bari parce que ñëw si yow toujours bindama leetar dèjà boobu dañ ko yóbbu force force léegi day mot un mois léegi léegi day mot année fekk doo ko du yàgg fu muy dem mais fu mu nekk nii internet ga dafa ga dafa gaaw ci moom mos na encore boo demee ci stade waaw. benn benn njëriñ la ñu wax. waaw. wax nga benn njëriñ. waaw damaa bëgg a jël euh, dool yi affaire beneen damaa bëggoon jël beneen. waaw ah, après nga wax beneen njëriñ ku nekk benn njëriñ. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ah, bokk na ci njëriñu ne. Eh, euh, technologie yu bari yi day day day day day def iqtisaadul waqtu quoi xam nga day yaqtasidul awqaat li nga xamante ne daan nga ko def ci ay heures yu bari mun nga kaa toog léegi-léegi nga def ko ko macha allah ñaari njëriñ yooyu jóg bind leen ko yu am solo la ci njëkk wax gis nga si wàllu coût si wàllu alal li nga daan dépensé nga nekk bii rek bëgg sa mbokk yi nekk ndar jot si sa xabaar bi nga toll si wàllu lettre si wàllu yéex wàllu temps loolu yëpp gis nga dafay nekk loo xam njëriñ la si wàllu tamit jot bu dul dara ordinateur bi rek comme ni ñu leen ko waree woon mu njëkk ba ba daan bind di juum bi boo juumee si wàllu waxtu yu gaaw yow da la koy économiser wala joxe xabaar ak jot xabaar da koy économiser donc fi nga nekk lépp mu kon loolu tamit njëriñ yu am solo la ñu ngi si ñeent njëriñ ah mais man njëriñ bi ma xalaatoon mooy albaax recherche. naam loolu tamit wax dëgg yàlla si ndaw jullit parce que buñ fàtte suñu thème njëriñ yi tënk si ndaw jullit bi ndax du nekk di wax si njëriñu entreprise ba ah dafay gaaw a am bénéfice ndax technologie yi bees yi day am nit ñu ndaw ñu mën a liggéey déedéet si wàllu ndawu jullit bi moo tax ñuy wax comme ndawu jullit boo xamante dëgg-dëgg bëgg na jàng xam-xamam yokk waxuñu si internet lay jàngee de mais technologie yu bees yi jumtuwaay yu bees yi bu leen fàtte toujours leen wax du internet rek moo xam si portable yi moo xam si ordinateur yi ak tablette yeeg yu ni mel wala internet yi kon kooku dina ko dimbali bu baax si wàllu gëstu ak wàllu jàng mais it ñu bàyyi xel leen dinañ si ñëwaat waxuñu ne góor góorgóorlu toujours si Cheikh Google di ko laaj mu lay wax ngay dem kon loolu tamit am na esprit mag bi si nekk. naam naam bisimilah. aljawaal yusaaidu ala tasdiil almaalumaat mbokk da nga am loo bëgg wax waaw sëñ Ba yusaaidu ala tasdiil almaalumaat da ngay di enregistré moo xam euh, fichier audio la wala vidéo wala image day mën a dimbale nga ñetti faw non loolu njëriñ bu am solo la mooy ak technologie yi li ngay dund am choix su la neexee nga dund ko en direct en direct mooy mbir bi nu amee nga topp si saa si bës ko su la neexee nga dem nekk si yeneen soo paree du dàq moom mooy enregistrement yi mën na nekk télé mën na nekk rajo mën na nekk leneen kon loolu tamit da lay dimbali nga mën a organiser sa vie si xam nan ngay mën a def ak wàllu technologie yooyu bismillah kon waaye man dama naan ci euh, tënk technologie day day jégal jégal lu sori waaw à partir de ce moment dañu xool avantage yi euh, ak contraire ci sama xalaat bi nag maanaam jégal lu sori daal waaw jegeel lu sori njëriñ la avantage la ci avantage lañ nekk donc am na lu si jiitu woon wax ne jegeel lu sori kon alhamdulilah jegeel lu sori loolu si njëriñ la ay suñu ñëwee si inconvénients yi bu la neexee nga wax lan mooy inconvénients yi incha allah yóbbul na fële waaw salaamaaleykum aljawaaraat fii atrasul xayriya alamaanaam قلت الجوالات فيه fayida bi tarasul xayriya naam bu fekkee topp nañu ñu ngi wax ne duñu yem rek si jawwalaat dañuy wax lan technique kul fay wax de kon mu bañ loo jox si jawwal rek bu seetee nga jàng ko dee dem feneen incha allah bismillah waaw comme nouvelle technologie que boo xoolee da nga fóot léegi am nga machine bu lay fóotal wala paase am nga fer boo xam ne moo lay paase lii de mooy suñu jigéen ñi bees ah du noonu yi may seet soxna yi ñoom passé fóot ak togg ñoom technologie yi ñoom moom looleen moo leen si arrangé njëriñ la bu am solo mais bu mu doon bi la bés benn bouton mu njëriñ la nag njëriñ bi ama am solo ngir mu am temps nag ngir dem jàngale diine xëy na incha allah mbokk mel na joxe nga benn njëriñ so gis nañ ne si njëriñam bi daal moom ku nangu yónnee la quoi foo ko yónnee mu dem. foo ko yónnee mu dem ku yaru la ah wax na dëgg de asalaamaaleykum aleykum salaam rahmatullah foo ko yónnee mu dem mais nag ndaw gi ka koy yónni moo koy wax lu mu koy yónni ak fa muy dem kon fa muy dem si bëgg-bëgg ka koy yónni la. kon loolu njëriñ ji tamit mooy bu fekkee nag ka ngay yónni mi ngi si bëgg ut yiw ak def si yiw mais dinañ ñëwaat si loolu si bu ñuy wax si wàllu salbiyaat bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. waaw internet bi bokk na si njëriñam ki nga xam ne day sàmm xam-xam. naa ko dina ko yombalal quoi. Mhm. ki nga xam ne day sàmm xam-xam internet dina ko yombal. waaw bu njëriñ boobu jiitu woon na fi ah 30 minutes moo ñu dese. naam ñu euh, waxagul jibril bokk na ci yooyu mooy gën a yaatal toolu woote ci yoonu yàlla subhanahu wa taala jàllale diine daal gën ko tasaare naam moyen bu am ama ama solo la si wàllu daawa si woote si yoonu yàlla suñ ko organiser suñ ko organiser njëriñ boobu nag waroon njëkk génne sax si jullit ndaw jullit bi wax si wàllu njëriñu internet ma ne njëriñ boobu la waroon njëkk génne ndax boo demee si ñi nga xamante ne duñu ay jullit te li ëpp si ñoom ñoom ñoo feeñal xarale yi ñoo ko tàggat génne ko teg ko ñu ëpp si ñoom li tax ñu def ko wala boog ñi jënd loolu li tax ñu def ko mooy ngir mën a jàllale seeni caaxaan mooy mën a maîtriser àdduna bi adduna bi dañ ko bëgg maîtriser contrôler ko yóbbu ko feneen neex dëpp ci télévision rajo internet ba léegi loolu foog jullit bi yeewu tuuti te bàyyi ci xel bàyyi ci xel joxul ñu jumtuwaay yi seetaan yi li leen neex lañ bëgg ñuy seetaan bëgg ñu koy déggee ñoom ne leen neex ñu déggee ko du dul lenn lu ñuy génne si loolu nga xamante ni jullit bi am nañ si loxo léegi kon jullit bi na xam ne ne loolu war na ko mën a exploiter nag jàllale si moom la ko bëgg mu jàllale mooy kennal yàlla topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam te ñu dee si loolu kon loolu njëriñ boobu njëriñ mënu ko ëpp solo su na amee wax dina wane naka la war a amee ñu mu def ñaari mujjee si njëriñ yi ñu def si loolu ñaari mujjee si njëriñ ñu def léegi xam na njëriñ yi daf may fàttali ak tamit comme yàlla subhanahu wa moom dañu indi ci kaw suuf teg fi ngir ñu am ngir ñu am réussite àdduna àlaxira wax loolu dafa ma gën a delloowaat ci aay ci aay aay mm. mu koy përëb përëb comme xaay sama bopp ci delloowaat mm. mooy li yàlla waxoon ci suratul euh, baqara mu ne kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaaba wal xikma wa yuallimukum maa bi jaar bi mu def nii ma war doon synthèse bi muy mujjee su paree si avantage yi ak euh, lor yi loolu lay ñëw laaj leen nag yan dalil ngeen mën a indi yu ñu mel nañ ko yemale foofu ñu continuer si dernier njëriñ après ñu def si loolu incha allah jazakallah xeer maanaam bokk bokk si njëriñ yi maanaam eh, enregistrement yi surtout si mairie yi ay extrait daawoon dindi ay ay enregistrement léegi su demee ay comme grève ni su lakkee presque dañuy perte la léegi suñu ko enregistré si machine yi défini mën nañ ko yóbbu ci internet bi bu dee dafa am grève ñuy lakk ci machine yi mën nañ ko recevoir daal foofu. macha allah loolu euh, bokk na si njëriñ yi mais boo xoolee dañuy wax njëriñ pour ndaw jullit gis nga bu ñu doon topp njëriñ internet dem ci côté administration moom li muy wax si wàllu administration la bokk si wàllu këyit yeeg mu gën a gaaw gën a wóor sécurité yooyu si la bokk dem ci wàllu koom bi. comme léegi nii sama mbokk yi nekk dëkk ba mën naa leen wari léegi xaalis mu jot si te loolu internet moo ko waral ak yu dem si wàllu entreprise jaay bi nii jaay bénéficiaire donc bari na mais ñu dañ ko bëggoon tënk rek si wàllu ndaw jullit comprendre nga bëgg wax léegi kon leer na ne technologie yi ab mbir la ab outil la boo xamante ne dugg na suñu àdduna mënatuñ si dara mais it wax dëgg am na ay njëriñ. ndax su amul woon ay njëriñ donc du am bii yitte di ko nit ñi jox bii yitte di ko nit ñi jox dana def benn étude si laaj ay ndaw bu fekkee ne wax nañ la ñaari média kese kese kese kese ngay topp ñeneen def nga bàyyi lan ngay def internet moo génn 60 pour cent fukki nit yoo jël juróom-benn yi internet la lay wax bu njëkk. ginnaaw gi télévision ñëw jël cinquante pour cent mooy fukki yu nekk cinq yi télévision lay wax gis nga solo gi mu am ginnaaw boobu nag dañu ne ñu naan cinéma ñii naan euh, journaux journaux yi ñii naan magazine yi ak yu ni mel kon nit ñi gis nga lii rëtunu seetaanu turu ñi ngi temps bi yëpp ci internet kon internet googu wala boog technologie yooyu yëpp ginnaaw solos googu ndax am ay ay lor ci ne wala lépp njëriñ la am na ay lor lu ñuy indil lor yi di dem ci lor yi incha allah naam dinaa bokk na si lor bokk na si lor yi. maanaam ndax yomb dina yomb pour ndax ki nga xamante ne bii xamuñu dara. day. ci yomb na ci. bokk na ci loolu maanaam ndax ci ki nga xamante ni xamu ci dara. waaw comme lu mel ni li ñu mbokk moom doon expliqué. waaw li muy gis si oto bëgg koo jënd mais comme tey bés bi gis nañu bu leen woon xaalis mooy perte na lépp. jërëjëf ci lori la bokk. jërëjëf a wax mooy bokk na si lori yi arnaque am si internet naxaate yi ak sàcc gi ah ak teg diir yi nekk si internet loolu lay wax dafa na te lor bu mag la nag. lor yu mag a mag li nga xamante noonu ngay xëy nekk si yitte am na ñoo xamante ne dañuy xëy toog seen machine di xool ni ñuy loxo yi nii kon moom joxe na ci benn misaal mais misaal yi ci du fi yéex kenn ci mbokk yi fii piraté nañ email am ah yónnee ñu ay message mu mel ne moom moom mooy message ne dafa voyagé nekk Côte d'Ivoire ñu sàcc xaalisam sàcc ordinateur am sàcc lépp fu ne nii na lu muy def amatul portable amatul benn numéro téléphone internet la xam suñu email la xam gaaw leen ngeen yónnee ma xaalis danoo sàcc sama quarante joxe beneen tur joxe beneen quarante ne boo leen ko def bu baax sama bopp jullit nga ne dafa nekk si jafe-jafe nga gaaw a jóg nekkante lépp ay càcc boobu ñu ci Dakar léegi gaaw lay doon boo ma ko yónnee ma ne ah Cheikh Cissé mi ko xibaar bloqué ko amul dara amul benn numéro téléphone alhamdulilah bu mu jàppee sama sama email ah daw daw euh, euh, nu mu ko tuddee di yónnee ko xaalis par si ñoom nekk lépp ay càcc la ay naxaate la exemple yi ñu jël kon càcc gi nekk internet ak naxaate bi mu ne tuddee cybercriminalité nekk na lor bu ngande ngande bu rëy rëy te loolu nañ ci def attention suñu amaatee suñu wax ñëwaat si bisimilah. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah. dégg nga. bismillah maanaam technique xadis yi ñuy wax fii nii euh, am na ay lorange ci kaw nit ki bu ci duggee te xamul ni ci duggee fu muy teg tànkam boobaa mën na ko julla ay yu bari macha allah xalatu di li mu wax lu am solo la xëy na ni mu ko waxee gis nga boo yàkkam ci waa ji daaneel ngay ci doo déglu lu mu wax ban lor la rek la wax suñ ko laajoon ñenn ñi duñ ko xam boo xamul ni yës yi duggee loraange yu rëy xam nga mën nañu wax internet bàyyi xel li baax li ma la bëgg wax dafa nekk ay tiroir yu bëri yow tiis soo coupé benn tiroir yeneen tiroir yu bëri ñu ngi si biir soo coupé tiroir moom yeneen tiroir yu bëri ñu ngi si biir te tiroir bu nekk am na lu taxaw kooku nan la xoolal li nekk ci biir lii dafa baax seetal ni seetal ni yow yaa ngi xool ubbi tiroir bee ci kaw far sa bët dal ci benn tiroir fii nga ne naa ubbi xool nga ubbi gis ko tiroir yu bëri nit ki dafa bëri ay yitte nga ah, beneen tiroir bu bëri kon réer gi lay réer ci mbett googu amul kilifa loolu moom mooy danger yi bu bokk ci internet est-ce que ma wax leer ma internet danger yu bëri kon boo may jóg di def da ngay xam ne man lii laa bëgg baax laay def lii sama email laay dem seeti nga dem fa direct mais bu fekkee ne da di tëj sa wax yëpp dina def te mun nañ la sànq lu bëree bëri laay seet. asalaamaaleykum si lu mu dul tamit naa yombalal kàccoor bi comme ça. mun naa yombalal kaccoor bi ci lu muy def comme ça yàq. waaw mooy li sa bopp ba de waxoon nañ doon mën a jàppale yàq lu wax dëgg la bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. comme maanaam fii nii ah fii noonu yi li ñëw. naam. fii fii noonu yi ñu ñëw di kii ak ak kii créer. vidéo réew bu dëgg après nga publier léegi vidéo naan diine moom baaxul diineem baaxul après loolu ay tax maanaam sa diine ay daal macha allah ñoo ngi leen est-ce bàyyi nañ xel dëgg dëgg li wala déggu leen li mu wax yàq gi internet mën na yàq yàqal nit tilimal deram saltal deram te xam ngeen ne deru nit ki bokk si juróom yi nga xamante ne islam daf ko sàmmal islam daf ko sàmmal li muy wax lu am solo la nit ni ñëw si moom wax si ay fene di gàcc yàq dara tasaare ko si internet xalaat si ko mën a am fu mu ko mën a defaree te nag lii si gën a doy waar moom nuy dund lan si biir islam dund si biir si rawatina si ndaw yi si kaw parparloo ci yenn machaaya si kaw parparloo mën na leen yóbbu ba di wax si kaw si kaw kenn si suñu suñu kan la yàlla jàmmal kan la yàlla jàmmal wax jooju ñu siy wax di ko tasaare si internet kooku amul lu luy yàq lu gën a bon yàq loolu ndax dina tax ba ñenn ñi dootu ko dégloo ci ñi seen xel jàpp nañu ah kon kii naka la mel fekk lépp ci kaw neen kon mbedd gi amul kilifa mais lépp liñ fiy jël ci xabaar nañ ko xam te yàqu jooju nañ ko bàyyi xel li wax lu am lu ma amal njëriñ la daari cheikh mun nañ wute si benn masala yi ndaw yi ñàkk ko comprendre ba tax ñu wax si kenn xamuñu ne xamuñu ne ñaar ñii am tuute kenn ki turandoom mi ngi doxal ci kaw si kër keneen gi damay junj mais si sa xëy na xam na li wax fii si suñu Dakar bii laay wax ñaari chef bi am fuute si masala fiq yi ndaw yi nekk si di si wax ndaw yi mooy man ak yéen ñaar ñi fuute nañ rek ñu danoo dëddoo wallaahi dëddoo ñaar ñi may wax. fekk ñoom ñu jàpp ne danoo dëddoo kii naan man si kii laa par kii naa si par fekk ñaar ñooñu kenn ki tuddee na doom keneen moo tax ma ne turandoo bi bu doxal ko si biir këram nga xam nga li yomb wax ah xaaral ma jaar ma am solo la gis ngeen xam ngeen euh, cheikh naa docteur Mouhammad Ahmad Lo hafizahullah tuddee na imam Aboubacar Sall doom ab Pakistan bu taw mu ngi doxal ci kër docteur yaa tuddante doom boo doon déglu ay jikko nawante wuñu ah mënuñu toog ay bis yu ñu déggoowul kii gisee nii si benn masala fekk kii waxee nii est ce que jar na dem si keneen ki naan ko diw de lii la ubbee woon wax ñu koy bind si internet du ko tasaare musiba nañ yar suñu bopp si macha est-ce que xam ngeen ne daanaka du passé weer boo xamante ne kenn ci soxna docteur yi dina yàkkal docteur yooyu imaam Ababacar Sall loo xamante ne waa jàkkam yëpp dañ siy reer damay wax ñaar ñooñu parce que ñaar samay kilifa nañ xam leen kenn ci nekk amiru daawa bu xarasatu xalaat kenn ci defe naa ñëpp xam nañ ko mu mu nekk ci beneen euh, association boo xam ne ci laa bokk tamit kon di jóg di wax ci ñun lay yàqal ñoom la ñuy def def nañ ko la ñuy gindi gindi nañ ko dañ jàng jàng nañ ko dana uute si masala jiitu na depuis si cosaan islam nay bàyyi xel li ñuy wax nay bàyyi xel li ñuy bind nay bàyyi xel commentaire yi li ma leer na ne kon jazakallah xayran beneen beneen micro bi. bokk na ci loolu internet yi mooy tasaare bi tasaare fen ak wor bi ci nekk comme par exemple nit da koy woo mun la maa ngi Dakar fekk mi ngi Thiès wala tamit nga wóolu nit di waxtaan ak moom ci benn mbir di waaye mooy lu mu wax rek soxna si mën a jaar. te gën naa yomb. daal comme allah. travaille ko. dama jàpp ne ñëwaat nga wax ban lor nga am bàlleen bàlleen di suñu mbokk bi wax di suñu mbokk ji wax càcc gi si internet yi càcc gi ak fen gi musiba fen gi si internet fen gi si technologie musiba chaque jour ngeen dugg si kaar kaar gi fan lay nekk fii post caare non maa ngi Thiès quoi maa ngi Thiès ah ah non maa ngi suñu kër gañ maa ngi suñu suuf bi ah dañ ko ñëwoon ne mu nekk ma. dégg nga de mooy chauffeur bi nekk si kanam di dawal waa ji woo ko mu ne ko maa mi ngi ginnaaw kaw la gis nga fen gi kon euh, technologie. dafa yombal fen dafa yombal fen dafa yombal fen parce que nit ki boo daan wax ci groupe di bàyyi xel ngay wax ne sëñ mais nag bu fekkee ne bàyyi woo xel yàlla subhanahu wa taala ne mi ngi lay yiir kon bu fekkee nit ki am na lu ko rëcc ci wàllu ragal yàlla am fen bi mën na ko yomb te internet daf ci jàppale bu baax a baax masaayif nañ ci bàyyi xel di nga ku si moytu tarxiis di nga amal nit loo ko war a jox mu woo la nga ne ko maa ngi feneen fekk ne amul fen gi lañ koy bàyyi xel yàq der gi téléphone yi léegi koo si woo mun na la mun na la mun na la enregistré kon rambaaj gi si nañ ko bàyyi xel nit ki dana woo nga enregistré ko soo paree tegal ko keneen soo paree tegal ko keneen kon loolu tamit nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax jazakallah xel salaamaaleykum wa rahmatulah ndax man salmiyaati ñett laa si amoon de ba xam mën naa ah, <laughs> ah benn bokk na si mooy. seetal bi a solo bi si gën bokk na si bi si dafa dafa gën a yombal li nga xam ne lislaam dañu ko tere mooy jaxasoo góor ak jigéen da ngay si góor ak jigéen mën nañ tase si benn oto waxtaan noonu rek ñu joxante ay numéro yooyu noonu daje fenn foo xam ne lislaam da ba tere loolu laa xool gi ree gi kaddu gi rendez-vous jaxasoo am ah noonu lañ doon wax mais léegi sax xool gi sax mën na bañ a am mais si site de rencontre yi si internet nit ku ne mi ngi làqatu si ginnaaw ab tur ak i âge ah di teg ay nit facilement nga am plus de mille amis da ngeen di dem bu cinq mille ak deux mille cinq cent et internet moo noonu ay xarit ñu ñuy wax virtuel mooy xamoo leen dëkk-dëkk xamoo fu nu dëkk lan lay wax mu dëkk xamoo leen ci daa mais nga jox leen confiance ngeen di weccee ngeen di weccee weccee yooyu nit ki ku muy faral di waxtaanal si bind wala si wax minute dugg su minute duggee bu yàggee rendez-vous am te buñ gisee am lor yu bari mën na nekk si diggante ay góor mën na nekk comme ni mu koy wax ci diggante góor ak jigéen mu doon musiba mu doon musiba gis ngeen euh, ndaw yi mbonte li ci ëpp li nekk ci médias yi moo tax ñu dugg suñu dëkk bi ndax amul cosaan amul woon cosaan suñu dëkk mais ci médias yi dañ koy wane ci médias yi dañ koy waxee jël ay nit ay kaccoor tudd leen ay ay wala ay star ay nag dina ay kàccoor nañ ay baykat lañ ay joueur film yu bon nañ feeñal ko fësal ko nit ñi di leen lor kii euh, ndaw yi di leen roy xoolal ñoom si seeni sababu bàkkaar yëm dëkkee futteeku nañ kasi solu bay génn bu dee jigéen mooy jullit bu solu nag bay waaj a tudd borom futteeku nañ ba ñoom seen bopp ñoo yor mott di créer col yi te ñoom seen bopp ñu si ëpp bu dee ay góor ay góor borom ñaari tournée moo tax lan nañ créer ñu koy jël di ko sol tubéy yu sew yooyu ñu koy commencé pee xam nga li ma ko wax commencé ah? léegi ndaw yaay ndaw jullit yi léegi ñoom loolu lañuy jël di ko sol subhanallah bàyyi fi seen yëre aadama mu génne seen forme yëpp si biti salaamaaleykum li ñuy wax ku ma intéressé wu na génn ndaw gi ñëw sol ab tubéyam bu dang siletment bu balaa ko si biir tubéy yi nit laayam bu sëggee wala bu mu naan yëral sama loolu xoolal sama loolu cek si anglais mooy lan xoolal cek ci anglais mooy xoolal loolu noonu muy tudd ci anglais mooy lan gannaaw yow góor góor nga sol lu mel noonu naan ko xoolal sama loolu xoolal sama ginnaaw subhanallah moom sunu sunu rek so xamuñu lu nekk ci ginnaaw mais loolu musiba la musiba la gis nga léegi kuy jënd tubéy waxuma nga ñawlu de kuy jëndi tubéy moo xam jiin wala leneen faw loolu ngay jënd parce que forme yi si boppam noonu nañ ko jawee fond bi day gàtt dang tubéy bi dang nekk p ba pare ñu naan la ceg sama loolu subhanallah kon yii nañ koy bàyyi xel baax a baax a baax lépp nag lu ko indi mooy technologie lor yi ci ne ñuy importer di dugal suñuy dëkk ak suñuy aada ak suñuy cosaan loo xamante ne nekk fi woon te ñan koy jëlee ñooñu amuñu benn yëg-yëg si wàllu diine xamuñu lan mooy seen jubluwaay fii su àdduna jazakallah xayra bismillah li nga wax sànq rek si duba yooyu li ma si yokk mooy aussi dafa am t-shirt yoo xam ne dañ ciy bind mot anglais des fois am na euh, des fois dañ ciy bind est yàlla moom ragalul voilà donc ay ay n'importe voilà ay mooyu garaaw garaaw yoo xam ne donc boo boo xamul anglais boo xamul anglais bu baax a baax defe naa t yooyu doo ko sol voilà euh, leneen li ma si mettit lu mooy boo xoolee aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc bi ñu ko mu ngi foofu di seeñu benn euh, je ne sais laa ko mën a expliquer donc yàq boo xam ne yàpp bi ñorul ñu ne moom lekkatu euh, kii la c'est pas euh, voilà euh, voilà mu daal comme benn lion boo xam ne bu jàppee croix mu koy lekkee voilà en plus aussi li may gën a voilà lan moo tax aussi may gën a confirmer inconvénient internet mooy que ne un jour sama papa def maa woo téléphone ne ma tey xéewal yi ñu war a jot ma ne ko ah lan la noonu mu ne ma tey ñun waa Alfala dañuy yónnee suñu direction ku nekk di nga am ordinateur ku nekk xaw ma ñaata million te loolu euh, ñun dañoo war a joxe rek ku nekk xaw ma euh, cinquante mille francs léegi ñuy gëstu ci loolu di gëstu donc finalement ñu xam ne li c'est pas vérité ay fen la te loolu yëpp li may wax nii donc internet bi moo ko waral salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah barakaatu donc euh, li mu mujjee wax mooy si wàllu fen yi ak fowee nit ñi di leen fowee ak ñi nga xamante ne seen diine moo leen saf moo leen yitte ak gindi nit ñi ak woote ci daawa bu set wicc kenn dal yàlla topp ne ñu leen di fowee mooy li mu wax ne moom la mu dund loolu it mooy la si bu nuy ba nuy fowee yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu doon ay caaxaan su koy tudd nag xol yi dina metti dina métti mais lii mooy wane nit ñi seen tolluwaay mais la tax mu tasaare dëgg mu am dëgg la technologie la technologie technique yi communication bi moo tax mu tasaaroo kon ñu xam ne loolu tamit ay lor yu yu la koy bàyyi xel di xam nan lañ siy duggee ak li ñuy jël ni duggee ak li ñuy jël leneen li mooy col ji mu wax nga yére yi ñuy sol bind yi ñu siy bind léeg-léeg ñun duñ xam teg lu muy teg. wala mun nañ ko ràbb ba nga xamante ne boo xamoon li muy tekki musiba mais bu dul loolu sax bu dul loolu li ma doon wax léegi star yi poudre yooyu ñuy jël di forcer seen yére ay photo ñu koy sol lan lañ si namm mooy bëgg loolu leen dëgg-dëgg gis ngeen fii ay star yoo xamante nit ki buy wax di jëme si moom wala mu koy seetaan ay jooy mbëggal koo xamante ne day si xam di si daanu mais mbëggal kooku du bakkaale du bakkaale ah lan mooy doon suuf daal di bu boobaa ñu ne dox bokkaale la wa min annaas man yattaxisu min duni illahi andaadan yuhibbuunahum ka hubbillah man jël nit ñooñu ak idéal ñooñu di leen bëgg comme ni bëggee yàlla comme ni mu bëggee yàlla loolu kay bokkaale la te koo ko def mooy technologie ñoo koy présenté noo xamante ne da koy bëgg-bëgg bu ëpp bul fàtte ne inna allaha laa yaxfiru an yushraka bi wa yaxfir ma duna dalika liman yasha wa man yushrik billah fii faqad dalla dalaalan mubiinan rek ay macha allah mbokk kon loolu nekk bàkkaar bu gën a mag mu nuy romb bis bu ne duñu rëcc mën na am ñoo ngi dëkk ak suñu benn rakk bu jigéen mu jël benn starlet yooyu ñu tuddee starlet bëgg ko. wax jami wax xam ko mu cosaanoo mu koy way mokkal ko te fekk ne mun xamul dara si alquran karim dañu xam ne responsabilité yaa ngi suñu kër buñ ko dindee nag ak doole mais nañuy naxante di taaral di waxtaan ak ñoom ne danger yooyu technologie yi la moo tax la gën a nekk suñu noonu mooy benn boîte bu ñuul bu ñu tuddee télé bi nekk suñu nekk wala suñu biir salon jazakallah xayran micro bismillah micro micro. bokk na ci ija salbiya euh, yi mooy dafay tayaloo nit ki ci jàng mm. léegi boo seetloo ni ñu doon jàngee bu njëkk ba dañ doon jàng di mokkal mais léegi pour nit ki jàng day day neewal day day day daal ci liir ay téere te ñu ñëpp xam ne njàng liir moom mooy saxal ay maalumaat lu nekkul léegi ñu ngi ci mais dañ koo xam ne day dajale ay lu mag dafa chargé ak lu ne ci ordinateur mais boo ko demee sa ngay mësul liir dara ci yooyu kon te loolu aussi ci it. Sarbia jazakallah xeer li muy wax lu am am solo la. ñu nga technologie yi dañuy tayalloo dañuy tayalloo ndaw bu toll si jàng moom nañu waxoon sànq ne kas sayf paaka ñaari boor la soit mu dagg la te yor ko di ko xawee dina la dagg bu waxul sax wàllu xam-xam jàng xam-xam li jàng man luuga moo xam français la moo xam arab moo xam leneen muy nit ki di liir lu bëri day tax mu gën a maîtriser luuga te nit ki si loo mënti ne da nga siy jéem a xarañ menuisier nga da nga war a jéem a xarañ si sa métier da jàng da war a jéem a xarañ sa la ngay jàng lan la bu dee finance la bu dee informatique bu dee économie da nga si góorgóorlu gën ci xarañ mais internet dafa ñëw tey def si benn benn càggante benn paresse benn boo xam ne kenn liiratu nit ñi liiratu donc si internet bi nay nekk naan dañuy déglu audio wala dañuy dañuy bax fekk réellement jànguñu dara loolu bu dee côté charan nag jàng dafa am yoon jàng dafa am yoon te duñu jàngee si internet li ma kon si bi ni tàmbale si formation formation defee mais internet dañ koy dimbali ko soo jàngee nag ba jaar si Euh, maraatib yi nga war a jaar ba am lenn si ay usul nga soxla dara dem ci internet di nga am lu la mën gindi ndax lii lu wér la lu ma war a jël wala lii wérul waruma kaa jël mais xëy rek gumba tax lu xale bu ndaw jàngoo ber sa daara ne daay nga du gis internet di télécharge bi tasaare ma ne doy na fenkat koo xamante cinq mille ah ça daal fois trois. may nañu mooy fasaadul axlaaq. waaw li ñuy indi di koy yàqu yi. waaw rawatina ci élèves. waaw sa boo xoolee ak téléphone bokkul ci li nga ne manipulation bi ko élèves yi def loolu leen jàngal ci classe bu ñu demee yi manipuler télé bi bu nekkee même biir classe dañuy manipuler téléphone yi dañuy obligé di ko noonu di ko denc da su ko defee loolu lañ jàng tey bu subaa ñu jëli leneen ay yeneen wax yu jëli kër man jàngale naa ko ma gis benn élève mu wax ma yàlla ko man xaw ba gisee ñu koy répété daa laajte ñu ne ma daa am koy wax théâtre ñu ne bas jaxate ma ko na xam ne ñii mooy ñu jëlee waaw dafa am fu ko jëlee chaque bu nekk am leen luñ dina ma neex ñu jël loolu da ngay wax ne na dina ma neex donc alphase yooyu nga xam ne doo xam fu ko jëlee ak lu muy tekki ñu koy jëlee yëpp technologie ko di ko di ju yàqu ji moom euh, leer na lu fës la sunu jamono ji jooykat yi jikko ji yàq yi nay jooy waaraatekat yi si jikko ji yàq yi wax jikko ji yàq yi lu ko tasaare nag mooy lépp luy technologie téléphone la wax internet mais sunu rajo yi 24 heures wax ay caaxaan lay wax sunu télé yi mooy li may wax ne vote jël def ko sunu biir kër mooy sunu noon bu ñëw ngir yàquñu ñu dem dindee ko lu seer bàyyi ko sunu biir kër te amul contrôle loolu jikko ji yàq kese technologie bokk na si lorom si lorom jikko ji yàqu na kon foog ñu dem waat ñi waxoon nag nañ Euh, dama am ci sànq la wax ci wàllu mooy wàccee Dubaï yooyu loolu dafa am sabab euh, sabab bi mu am mooy dafa am prisonniers jëloon tëj leen ci prison bi biñ demee ba dañoo dindi seen ceinture doon takkal loolu moom moo indi jëf boobu ñuy def mooy wàccee bi ñuy wàccee seen Dubaï euh, bi nga xam ne ci salbiyaat yi la bi ci gën rëy bokk na ci mooy sànq bi nit sànq waxtoom macha allah euh, waxtu wàllu waxtu euh, jullit bi amul dul waxtoom waxtu yi si lay jëfee la ñuy dugal aljanna waxtu yi si lay jëfee li nga xam ne ne naa sànq jullit bi yàlla incha allah musal am si mbirum borom bi subhanahu wa kon waxtu alal la lu nu war a euh, garder la lu nu war a jëfandikoo la moo tax sànq si tàmbale bi ñu indi xadiisu nexmataan kon gis nga waxtu ak euh, wér ci euh, du ma ak wér mooy jot ak wér dafa doon cosaan si diine te su nee jot nag lépp si waxtu wi la internet kenn du tudd lorom moo xam ci côté diine wala ci côté àdduna du dul di tudd waxtu yi muy sànq waxtu yi muy sànq duñ si xóotal ndax keroog dégg nañ biram ku yëngu si lu ma si fàttali yow dèjà sa nelaw rek li mu lay jël si waxtu ak sa nelaw huit heures de temps sa ñetteelu xaaju dund nelaw nga ko diggante bi nga nekkee bébé bay day nekk bu kàllaaf daanaka déggoo bi daal kon li la desee nga nelaw ñetti xaaj bi bëgg lekk beeg sangu beeg ataaya yi nga xam yu si mel si ah gis ngeen internet jawwaal kii yu bees yi de technologie yi de li ñuy wax moom moom bokkatul bokkatul si salbiyaat yi la bokk dégg kon jëfee nañ si benn kon waxtu woowu sànq gi muy def kooku musiba kon ndaw gi nga xam ne amul lu waxtu bëccëg yeeg guddi yi ñu ngi liggéey si kawam na góorgóorlu mu profitoo si waxtoom balaa waxtu ba di ñëw balaa waxtu ba di ñëw kon ñu jeexal si ñaar incha allah si de maa ñu ñaar rek. salaamaaleykum man dafa am lu bëgg a bàyyi loo xel mooy technologie yi nii mu avancé tax na ba léegi ndaw ñi jëndatuñu ay téere ndax téere boo bëgg da nga koy am ci sa maktab saamil wala am ko ci biir internet loolu nag baax na waaye dina yàq leneen lu ko gën a rëy ndax benn makaatib islamiya yi fi ñuy denc téere téere jullit téere boo bëgg nga teg ko fa su boobaa te foofu dootul amati njëriñ day daanu loolu tamit day juraat leneen mooy boroom xam-xam yi dootuñu bindati ay téere ndax su fekkee ne sa téere soo ko bindee sonn ci makaate bi duñu ko jël wala amul ay maktab su boobaa euh, loolu daanaka yàq bu rëy la ci lislaam teg ci loolu day juraat keneen ku mu neex mun nga jël lu la neex nga bind tasaare ko mu tasaaroo te bu njëkk ba téere ngir mu tasaaroo faaw ñu jàngat ko jaarale ko ci makaate bi mel noonu kon loolu yàqute bu rëy rëy la nar a indi ci kanam te loolu ñu bàyyi ci xel di jënd ay téere varoli valoriser téere bañ a rek ci ay maktab wala ay eh, internet yu demee noonu. macha allah jazakallah xeer ñu jël ci si la. salaamaaleykum. waaleykum salaam mooy maanaam gis naa ne ay ndaw ñun yoo xam ne ñoom daanaka boo xoolee sax te dinaa ma xam nekk nii guddi gi yëpp ci internet lañu nekk. luñ fay nekkee maanaam di télécharger ay jaaxal yoo xam ne bëri ngeen seen photo di ko publier rek di wax ñoom ñooy kan rek ñoom ñooy kan rek man gis naa ko ba tàyyi mooy laa mu may wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah la te euh, ñu ngi siy dugg waaye ah. benn mot nit ñi bu leen nangu ah bu leen ko nangu yow yow nga nekk star bu leen ko nangu star xam nga xam nga star ah mooy trop sànq trop réer ah àggu réer la mooy star sànq sànku trop alku réer euh, technologie yu bees yi nii dafa war a chômage dëkk bi quoi Euh, parce que li téeméeri ni doon liggéey comme ni ko fexee woon démb dañuy indi benn machine boo xamante ni dafay benn euh, mooy jël place nit ñooñu ñëpp quoi loolu euh, mooy technologie yu bees dafay wàññi loxo nit si kaw liggéey mooy liggéey dafay gën a jafe ndax technologie yu bees dañuy yor entreprise yi li ñuy soxla. mooy bénéfice te bénéfice bi nag li charge yi gën a mën a néew mooy mooy li ñuy def mu gën a mën a néew la bénéfice bi a bëri moo tax te ni wàññi bu baax nit ñi lépp nekk si si wàllu ay machine ak yi xarale yu mel noonu kon mbokk yi kon exemple robotisme non exemple bu bëri na boo xoolee si si entreprise ah dañ si man benn exemple ñu jeexale exemple dafa am euh, benn usine bu ubbi ginnaaw mboon LDM euh, euh, léegi ñoom dañoo jëloon ay nit ñu bëri ñuy liggéey ñoom bi ñu demee ba nga xam ne léegi nag monte nañ seen machines yi yëpp machines yu bëri monte nañ personnel yi fi nekk yëpp dañ leen a dàq donc ñooñu li doon def lépp fu ne yi ñoo koy def da dugal fii bagage bu tomb yóbbul tool ne fekk te ñeneen ña doon liggéey ci yooyu yëpp dañ leen a yàq dañ leen a dañ kon ñoo ci somay kon euh, mbokk yi dañ leen ne gis ngeen ne euh, darsi bi ku nekk mën na ko continuer boppam li am solo ci tënk mooy ñu xam ne ne technologie technologie ci boppam ab mbir bu bees la si sunu dund bu ama ama am solo bu am am am solo mais it dafa nekk benn drogue jàppal benn baat drogue drogue mooy lan loo xamante ne boo xësee tàmm xalaas mënut aussi génn lu dul nag yàlla dimbali ak ak taxawaay nag bu mat sëkk kon ñi ci nekk nañ ci def ndànk ñi si duggagul nañ si seey naat ñu la tiroir boo ubbi tiroir yu bëri ña ngi lay ne ubbi ma ubbi ma ubbi ma nga yeneen yu bëri naan la ubbi ma ubbi te yi nag yu baax yeeg yu bon yëpp a ngi si biir ginnaaw gi bu nekkee drogue toujours ñi ngi koy wax mbedd bu amul kilifa bu yaatu ba pare minute bu nekk muy gën a yaatu xoolal mbedd bu amul kilifa bu yaatu lool ba pare ñu ne la minute bu nekk muy gën a yaatu loolu yow nga jéem si dem nag da ngay seet dara da ngay dara ku nekkul nag ku pare ku taxaw day yomb këf day yomb këf kon laajte bi mooy nan lañ war a def ba internet ñu yem si njëriñ yi ba pare nag bañ mu këf ñu bañ këf ñu kon dawu jullit bi li may dimbali ko day bañ a mel ne ab ñanaaw bu amul bopp wala ab ñanaaw bu amul ay laaf ñanaaw bu amul bopp moom dee na ba pare mooy ñu nekk ci biir internet nuur si ba mënatuñ si génn xalaas seen waxtu yëpp ci la ñuy nekk suñ génnee bu dee ci classe commencé nañ connecté wu ci biir kër yi ñuy connecté wu mbedd yi ñuy connecté wu guddi yi ak yooyu kon ñooñu xalaas ñu bañ a nekk ñanoo bu amul ay laaf mooy lan koo xamante ne rëbb bu ñëw yóbbu ñu laaf yooyu nag lan lay doon pour ñu dimbali dimbali ko du leneen du dul taqwallah taqwallah ak mahabba li nga ragal yàlla moom lañ war a dimbali ko ba saa su ne suñuy dem si jublukaay jumtukaay yooyu ñu xam ne yàlla subhanahu wa taala mi lii mi ngi yii muraqaba ñu war a rus lool mu gis ñu si lu ko neexul kon ñu xam fan nañu ubbi ci yooyu lan lañ koy def sàmmoonte ak suñu yeneen engagement yu mel ni dundee bëgg yàlla boobu subhanahu wa taala tax nag tegu si yoon bi xam ne ñun fu ñu jëm mooy waajal bés ba te bu boobaa boo góorgóorloo ba nga bëgg ne bés ba buy si dina nekk nga doon dëgg-dëgg jullit loolu day tax ba de doo mën a nekk si mbedd bi dugg génn mais da nga nekk ci mbedd jëm fa nga jëm ñëwaat mu doon njëriñ kon li ñuy tënkee mooy ñu xam na ne technologie yu yees yii technologie yees yii ab paaka ñaari boor la imma nga daggee ko imma mu dagg la kon mbokki jullit yéen ndaw li leen wax fafirru ilallah te ngeen bàyyi xel paaka ñaari baal yooyu bañ see dagg yàlla yàlla nangul yal na yàlla def suñu ci dégg ñun ñëpp bokk ko mu doon njëriñ ngir euh, ëllëg euh, mu doon sabab mu dugal ñu aljana loolu moo la am solo haza wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala dañuy def pause wala mubashara waaw comme tey euh, ajjuma la te waxtu bi dafa xat midi lañ bëggoon arrêté déjà lekk naa euh, euh, vingt minutes si mbokk si waxtu mbokk bi bàyyi ñu enchaîner rek insha allah xanaa jiitu woon na fi ñu ñu présenté leen ko kon jarul ñëwaat ah na fi jaar nga ah mi ngi doon nga ñëw oui macha allah kon. Euh, kon mbokk yi ñu continuer rek ak yéen ci programme mu euh, daaw ci àjjuma ji